nowadays working at 9 to 5 Blue collar dollars for the fan which I provide Not a white picket fence, yeah that all makes sense mooy ñaar mi ngi dugg ci làmb 2009 maa ngi am naa 9 victoire ak benn défaite bi mooy suma onzième combat bi ma war a bëri incha allah adversaire xam naa ko xam naa ko bu baax yàgg naa ko seetaan mu bëree tey daal ñoom ñu ngi jiitu ci làmb xam na leen bu baax daal ñu ngi gis ñu ngi seetaan seeni combat olof yu mbër yëpp xaw xamante xam naa ko waaw jëf Surrounded by the fences, tall kids in the crib. My wins, mind the old ways. Our time is our time, knowing his is his. Letting me live. There's nothing in this world like having a peace of mind and place or peace of calm. Lounging with my feet up. ay point faible am ak ay point fort am moom la concerné. te buñ ko xoolee sax nekk lu liggéey la mais nekkul lu ñuy wax quoi nekkul combat risque parce que yàgg nañ ko def waaw ñun presque boo xoolee combat yi ma bëri yëpp ñoo ñoo ma jiitu làmb foofu ñoo mag mais loolu amul sens quoi dangay ñëw gëm sa bopp rek waa pour nga yegg ci kaw il faut nga daan ñooñu. loolu la foog boppam jaalukaay moo tax mu waxee noonu ko quoi ñu adversaire adversaire bu ñu respecté la nag waaw jox ko cëru adversaire bu laa mujjee jotee ñu def fula ak fayda ñaan suñu boobu may ñu ndam incha allah. man la bàyyi géwél yi waaw loolu la yàlla def tegu mën nañ fala sax mais waaw loolu la yàlla def daal boolema ak ñoom mën nañ sant bu baax nag gis naa taxawaay bu baax man boobu ñëpp laa boo ñaa ñëpp koy bégee. waaw ñëpp koy béggee maa ngi sant ñëpp di nuyu ñëpp yéen ñaan ñu ñaanal ma suñu borom may man tam ci Twisting pretzels minus the salt. I'm as high as a gymnast doing flips and somersault. Tranquil is my feet in the sands of Antigua. Lifted off the kick of the stairs of sunny Chiba. Yes, indeed. The essence I breathe be that pleasure. ñun boo gisee ñuy dem extérieur di pare combat nekkul na ñun dañuy dem parce que dañoo bëgg a dem. loolu dañoo gis ni ngeen di dem déedéet ñu dañuy dem parce que daa am lu ñuy soxla ci combat course yi entraîneur yi staff technique bi waxtaan ne boo demee foofu liggéey lii pour nga indi ñu lii ñu dem liggéey loolu ñu indi loolu loolu lay demee ñëw indi loolu pour combat bi ah. ñaan suñu borom ma ñu dem ñu dem wuti am nañ ko ñu ngi sant yàlla bu baax ñun amuñu pression de ñun ay booy ndaw lañ nekk ci làmb amuñu benn pression ñun ñu gisee ni làmb ji noonu nga ñu gisee mais bu arbitre sifflé moom fu la ak lay def di ñaan suñu borom may ñu ndam incha allah. waaw supporters yi amateurs yi waa Pikine bi Boy la am ñëpp a mais fii la dëkk am waa ñu ñëw bu baax suñu borom ma ndam. ñii balaa Boy Niang di bëre saa buñ toogee nii ñëw toog ci biir ñoom ñu defar ma ñaan suñu borom may ma ndam ñooy samay tuutànk yi ñooy samay xarit daal tuutànk yi nii mooy dal jàmm. nga gisee Boy Niang nag. benn athlète athlète la. athlète. amul graisse amul graisse. biir ba dagg na macha allah dëgg na jeune la gëm na ne athlète la. il au football il aime jouer ay cordes. Uh-huh. il aime jouer vraiment même ses combats da ko ci lire. mais on dit ça qu'il aime bien jouer à la boxe. parce que dafa njëkk def boxe ba pare doog a dugg ci lamb ji donc voilà. et puis loolu dafa ñuy indil degré intellectuel. mën uh-huh. nañu mbëri fii ak 10 ans 20 ans. yéen a jàngi par force même bu ñu nekkatul fii non dañuy dem jàngi nekk ay. élève ko ah, duñ ko waxee woon rek ku ñuy fay ay millions da ngeen war a jàngi ji donc nag loolu day joué ci làmb mhm. mba xaa woon a mbër bu la gën a muus moo la a mën moo la gën a mën ah, lu waykat bi wax camion ngaaka benn nantee ko gën waaw kon foofu la ñuy jaare nee na camion ngaaka benn nanditee ko gën xam nga moom nandite la teg boppam teg ka bu rëy la xoola nañ leen xool rubrique wax feeñ te dellu si waat non commenté nag wax feeñ du dara. waaw léegi bu ma filmé. waaw filmé woo. <laughs> du travail nos excuses. baal mais su ma waxee woon nii. baal ñu baal ñu lan mooy def doy na doy na man mi ngay liggéey dama ko faal. doy na doy na doy na doy na doy na. amul solo papa amul solo. amul solo ñoo far ñoo bokk. jeex nos excuses li wax ak man su ko waxee woon amul solo waaw mi ngi jégalu mi ngi jégalu mi ngi jégalu jégalu sawar daawuda sawar daawuda sawar daawuda sawar nawuñu la bu ko laal amet mais ko laal ko mais ko bos bu ko laal vidéo bu la bu ko filmé mais ko bos barki Cheikh Khadim boo ko laalee dig sama jikko laal ko day laal ko waaye daawuda waay yow dana ñàkk fay waay ba yow mais bu ma sa liggéey def waaye Moustapha no comment dañu nekk ci force faiblesse mentale zos nga ne rek kees gi rek mais bëgg nga xam coffre bi condition physique ba mhm. nam fay demee parce que gis nañu ni bi ko Papa Sow daane moom Zos dafa dem gam bi bind bëreeg Dine Mori. Mhm. dellu si nag parce que Papa Sow daf ko daan rek le lendemain mu takk ngembam. ñu gis ko ci benn chaîne de télé ñu jël ko. mu ne non non man papa daf ma nar. ah mhm. la ma woowoon ah daf ma lii mais ku nekk da ngay stratégie la rek signature de contrat. comprendre nga mais léegi nan nga gisee nag ki nga xam ni dañ ko daan tey tey tey tey tey le lendemain mu takk ngemb dem entraîné ji dem gam bi day maintenir forme parce que jëli naa gargarakam gis ko muy entraîner respecter entraînement am. Ah nan nga gisee ci force mentale faiblesse su Zoss. xam nga Zoss booy xool sax taay ba dafa ko muy mbër jëmm ja dafa ko muy mbër mais gëm mbër bëgg mbër di sonn moo tax tey nekk mbër raar nañu am ay taayu Zoss nekk ay champion ki làmb ji mais Zoss champion bu confirmé la. Mhm. ku am yar la aussi ku am teggin la ku xam lu mu bugg la. Mhm. mais ku Papa daan. démérité woo nekkoo bu ñu daan démérité woo. te Moustapha dañuy taxaw mais mu defaru hmm? mais c'est important. mais dañuy taxaw sax ma may la buntu nga porox ndollu ni Zos il a deux ans depuis deux ans mi ngi tegale am na compétition. mais bien sûr. il a eu cinq combats et sur les cinq. boo gisee ni bi mooy cinquième combat ah, benn la ci benn la ci perte daan na guy gi ah, ñu toog ko Issa Pouye mu daan ko ñu jox ko <laughs> daan fa naw de su boobaa waaw attention waaw mu daan ko jox ko Issa Pouye mu duma ko daan ko mhm. mu jox ko Papa Sow Papa Sow daan ko ci bëre parce que mhm. doon xaar xeex Papa Sow ñëw indi bëre mu dem Gambie am Djiné Mori daan ko mhm. ñu ne macha allah Zos dañ koy booleeg Boy Niang ñu dégg ñu ne ah Zoss dafa am wërsëgu taan mu ne macha allah bu leen ma catu. Mhm. voilà parce que gis nañu Zoss dafay mbappat Zoss dóor bi lañ doon wax mais Zoss mbappat bëre noo gisee ko. mais Zoss xam na dafa compétir. Mhm. mu def yooyu yëpp. mais loolu plus moom am combat même bu dee 10 ngay entraîné jóge ci combat entraîné ko ay 4 5 mois jóge fa am défaite dafa takkaat sa daal demaat ci géej gi dem bëri jiwaat plus la pour moom tey ji mi ngi mi ngi bëriwaat moo doon tënk tey Zoss Karier Zoss c'est un lutteur boo xamante il accepte les combats aujourd'hui Zoss moo ne lu bëri mooy Boy Niang da lay xaar. waaw parce que ci micro trottoir bi da ngay seetlu ni am na. ku ne vraiment waroon na xaar garga waru ko woon jël. parce que risque la voilà amul importance li am importance mooy Zoss def na ko rek. mooy compétir. Mhm. gagner de l'argent faire un combat quel que soit le résultat dugg na ci arène bëri na parce que sax dañ koy fàttaliwaat encore seen rab daan daanu machine la fi nekk. Mhm. bu ki nekk daa am dë daa am degré Zoss mi ngi compétir dafa am carrière bu muy def. mu koy def. donc daal bu ñu doon wax daal combat bu nar a neex la. combat bu nar a neex la gis foofu ah, ah dina ko bëri aussi ah, xel waaye ñu mu bëree dina koo xamante ne aussi xel ma yu bëree a ah, àggul sax ci at ya. waaw combat bu technique la wax doon macha allah combat bu wax doon nee na nañ xaar nag Zoss indi technique ndax combat boo xam ne nag moom expérience la ñuy xasantu ci moom jeunesse bi ñu bàyyi ko Boy Niang mm. ñu xool nag revue de presse ak Mado te dellu si waat salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen biir rubrique revue de presse ñu yëral leen nag li gën a fës ci yéenekaay yi di tàmbalee nag ak yéenekaay bi di sunu lomb sunu lomb ngi fësal nataalu ki di amaneex ginnaaw ba mu jotaatee victoire ma ci digganteem ak Lac Rose amaneex ngay sàkku ñu dell ko li di drapeau wam ana mbër yi amoon mbëbët ñu yégale li di cachet làmb ji ba 200 millions bu leen yeboo ñu tàmbalee ibbi seen ay gët ndax seen gént yàqu na du samay ensemble ña ngay laajte it 75 millions yi ñu bëgg yemale cachet mbër yi ñoom lay jëriñ wala promoteur yi waa sunu lamb it ngiy fësal nataal kii di Tyson ak Bombardier duppee leen ñaari mbër yay waaj a dem sàkku ya ka demul sàkku ya keñ moo di Sa Thiès waa sunu lamb ngay laajte ndax dana garde ba tey li di ndamam yooyu ñu jàll ci yéenekaay bi di Leewtoo ñaari fan a ci des wëre ba dem keng waxe mag dem geñtaal li ñeenti ponkal ci benn tàkkusaan dimanche lay doon Sa Moussa Dioum Zos ak Boy Niang waa Leewtoo ngay laajtewaat ndax kii di Moussa Dioum borom Kimbera Magie ak Zos borom sos sosaat ginnaaw bi ñu jógee ci ay défaite nan nañu dundee di saa yu combat bi waa Leewtoo ngay lam-lame it deuxième face à ci kii di Gris Bordeaux ak Modou Lo samedi lay doon man nag sama face à face lay yem ak yéen ba pare di leen di jox rendez Moustapha xool nañu revue de presse ak madoo ko pare hmm. léegi nag dañu nekk ci force et faiblesse su Boy Niang di doom ci dëggool macha allah am benn defet hmm. ama neex daan ko donc nan nga jàngee force ak faiblesse àndangam ah, am na ko parce que wane nañu ama neex dafa ñëw rek comme ni mu mën dam rek takk rek yóbbu daan ko waaw léegi nag mental bi nag depuis loolu nag mu defaru image baa ngi may traversé boobu léegi hmm. image bi ko euh, ama neex daane Papa Dia gàddu ko di yóbbu sëgg di ko yóbbu ci oto pour mu rentré mu may traversé. loolu da ko war jël moom moom Boy Niang di ko teg di ko seetaan. pour mun a préparer son futur. Ah, ah, ah. seetu la. defet seetu la. parce que ñëpp dañu seen tool ne deen ama neex attention uh-huh. lem ama ñoo dam yee ak ko fu mu ëpp mbër nag saa ñu ko àggee fu ëpp rek su moytul su amul trop bagage dafay tëdd fii tamit dañu ni bu kenn xeeb dos bu booy ñaa xeeb dos yaakaar ni moo ko mën ci bëre wala mën ko ci xeex. nan ngay tontu ñi nga xam ne dañuy rek ne booy ñaa dafay dóor daf koy daan a ñaa mais booy ñaa mënta xeeb jos. li jos def ci làmb booy ñaa defagul kaar bi. ñi mu saafoonteen saafoontegul mooy jos jos ragal mu ñëw xeeb mais booy bu ñëwee na ñëw fulla ak fayda ak xam ne bu amee ndam fii dina ko dugal ci guuta goo xam ne da ko ubbil yoon donc booy ñaa booy xool. force bi force bi moom mooy day ñëw la moytu moytu la parce que ragal dawal la parce que dafa ragal. stratégie la dafay jouer le jeu bëgg suñu moo tax def ko est-ce que suñu nga Boy Niang di bëgg la. déedéet day jam nañ ko moo ko est-ce di jàppante ji jàppante ba ba ko defee ak si parce que loolu mooy calcul. il faut calculer les choses 2 plus 1 égale 3 ainsi de suite day ñëw di rapprocher da lay sori di la sori mu yàgg mu jege la di contact. saa boo la dóor day dóor nag saa boo lay day bëri. bu nga nekk këtam daje li ñuy def moom mooy lan lankum bi lankum daje bi boobu gars di wax <laughs> ñoom ñaar dañu joué ci gaño day wuti gaño uh-huh. Boy Niang day mm-hmm. nag foofu nag am na avantage Boy Niang moo gën a gudd ay cër moo gën a gudd loxo mm. mais lii ci kanam rawu liggéey dimanche incha allah mais ne Zeynab liñ ci mën na waaw mais tënk ko rek ñu tàggoo ay Boy Niang bu amee victoire ci combat bi dina ko ubbi macha allah les portes nag macha allah fu mu jëm portes yi maanaam Jos bu amee victoire aussi daf ko humilier xaal naan ah du ah. ma moromu ñii. da koy mu dem suba mu ne dañ ma jox daan bëgg naa. waaw waay. kon dès dimanche daal les combats vont se dessiner. mais Jos Jos ñooñu la war a bëri nag léegi nag bu amee victoire fii non ñooñu lay yóoti yi nag. nañ ko ubbi nag su mu liggéey mérité na ko Jos dafa def carrière bu extraordinaire. boo doon tàggu. bu amee ndam ci combat bii guddi gam dugal nag du ko tax a parce que ay eh, adversaire am dañoo dañoo ko mënoo tëb ren tey jii ah Boy Niang dee bëri gi tey jii ak Tapha Tine hmm. foog mu chemem ñoo ne eh Boy Niang dee bëri gi Eumeu Sène déedéet donc am na benn catégorie mu ne boo xamante ne foog mu nekkoo ay fa tuuti jeune carrière la foog mu foog mu bi brillel ko hmm. ba maa leen tàggu meen tàggoo moom damay d'abord euh, féliciter Sénégal yëpp ci liñ jóge nii mooy la direction législative warawaat nañu mat ah di ci beral nag nuyoo bu baax a baax ak di ko sargal sunu sëriñ sama sëriñ Mouhamadul Mansour si Djamil ci vraiment li nga xamante ne noonu la taxawee mënta ñàkk nag mënta ñàkk parce que mënoo dugg ci dara rek génn ceeg neen Cheikh Sidi Hadj mooy sa maam sëñ Babacar mooy sa maam sëñ Moustapha Sy Djamil borom fas mooy sa baay li nga def ni ñu ngi ci félicité bu baax a baax allahumma salli ala sayyidina moom wa sallam Moustapha Gueye tàggoon na man nag maa ngi naan jaajëfal naa équipe technique bi yëpp ñu àndaloon jaajëfal waa régie te naan nag tey sama bésu anniversaire bu mag la ku mu bëgg mu di Fatou Kiné Ngom jàpp ci solo bi depuis début saison bi ba léegi madame Fall joyeux anniversaire dig daje ba beneen yoon ci beneen numéro L'Oeil du Tigre fii ci TFM seetu askan wi wasalaam